Pour augmenter la visibilité de votre entreprise, affichez-vous sur CETADAKAR.COM pour vos clips publicitaires, votre site internet, vos films d'entreprise. Contactez LS de Lori sur cetadakar.com, le magazine tout en vidéo qui parle aux Sénégalais partout dans le monde. C'est vraiment décevant. Ce pays du Sénégal, là, c'est un pays dont les gens n'ont pas, pas la rigueur. Ils n'ont que la parole. Parler seulement, ce n'est pas suffisant. La Coupe d'Afrique, là, on ne la gagne pas avec euh, le masalade. Il faut vraiment se bagarrer. Euh, ni ma match début baaxoon na mais classement bi euh, monsieur Amara Traoré dafa war a classement bi. l'organisation de l' organisation du jeu et tout et puis il y' a des erreurs individuelles yoo xamante ne que waruñu ko mun admettre pour un professionnel quoi franchement parler quoi dama xamul nag choix bi mu Amara def noonu ah moom daal la concerné dafa xaw a doy équipe bi dafa manqué fond de jeu ça va pas Il y' a des distances entre les lignes on se retrouve pas mais je trouve que li gën a metti les sénégalais ont remarqué que moi, l'équipe n'est pas bien préparée psychologiquement parce qu'on voit que joueurs joueurs j'ai l'impression qu'on les a pas préparés à cette compétition la plupart c'est la première fois que jouer compétition en peut-être euh, manque de récupération dafa parce que vu que nous sommes peut-être que mais on dirait tamit euh, gars dafa melni dafa am lu len manké quoi jom bi dafa dafa xawa a des quoi. supporters yi sen bop xamné carrément équipe bi baxul concours Soudan match bi dafa daw muju bi 85 vingt cinq minutes sénégalais dañu muju jog supporters di tatchu wa Soudan concours Kenya tamit non la fa démé wat classement bi baxul parce que bo xolé nu mu classé rek nga xamné li mënul dor mënul dor équipe 3-6 nan la mune gagner équipe mais mom day ñëw pour défendre mais loolu la rek motax ñu ñak match bi. football amul hasard papi Cissé 19 éliminatoires, éliminatoire yi performance yi mu doon def ak Moussa Sow donc ñoom ñaar dañu complémentaire et ça marchait bien donc pourquoi nous ñëw ba Coupe d'Afrique bi ñëw loo xam ne musul dox pendant éliminatoire il nga beaucoup essayer c'est-à-dire des Pape andi Mamadou système de jeu qui bees Nous avons une équipe bi dafa manqué fond de jeu donc pourquoi nous avons beaucoup Coupe d'Afrique Pour créer loo euh, pour convaincre nit ça passe pas donc comme le système a marché avant pourquoi pourquoi pas continuer avec. on n'avait pas l'habitude de jouer en 4-3-3 Nous li au Sénégal mais 4-4-2. classique bu ñuy attaqué 4-4-2 la bu ñuy défendre 4-2-4 la. mais nan ngay mun a jouer 4-3-3 di attaqué mais balaa ngay attaqué da ngay am milieu terrain bu baax loolu kese la moo moo tax ñu perte match bi du dara. mais deuxième match mun na am ñu gagné nañu xoolaat suñu bopp rek. football bi méttiwul défense du défense attaque ba nga fàtte milieu bi. football bi da nga war a oyof quoi boo xoolee espagnol yi loolu moo tax ñuy gagné ay mondial seen joueurs yu ñoo oyof dañuy gaaw ci flanc yi mais ñun suñu joueurs yi dañu diis loolu moo ñu manqué il faut ñu am ay joueurs yoo xam ne ci attaque bi il faut comme genre Issaïar Dia genre yooyu moo ñu manqué am nañu potentialité mais dañu amul ay joueurs yu oyof joueur bu oyof dafa am solo. man dama gis ni El Hadj dafa war a soir ci équipe bi parce que amul ben milieu terrain bu ko dàq football actuellement ni Sénégal comme Ngirane Ndao Ngirane Ndao baaxul loolu ñëpp xam nañ ko ak ñeneen ak ñeneen. joueurs yi ils donné tout parce que classement ni ñuy footballé classement bu coach bi tek dañuy appliquer fi joueurs so soo individuellement ñep ku nekk am nañu potentiel ku nekk ce club yaa fonctionner di prouver kon lan moy problème yi bëgg a ñu. boy yi mun nañ football am nañ talent ñàkkuñu entraînement. milieu terrain bi surtout milieu terrain bi day sen gaay yi gaaw. man loolu laa leen di ñaan quoi ñun dañu bëgg a bëggee quoi. fukki attaquant nga teg ko ci milieu euh, défense euh, bi football bi attaque bu ne bëgg a dugal nan la ñuy amee bi Amara Traoré nga dem équipe la yor mais boo toogee ba heure bi di classé classement cuune mais duñ dem ñun luñ jëmale si kanam la ñuy wax ñun lu ñuy delloo ginnaaw. yaakaar naa ni Amara Traoré. Euh, intellectuel football la deuxième match bi dina xam li mu def parce que dina tirer point ci erreur bi donc population sénégalaise bi buñ jël euh, buñ jël erreur né coach bi li loolu moy am ci coupe d'Afrique heureusement mu dal ñu ci premier match. gis nañ fi mondial Espagne ñu dóor ko premier match mu jël coupe du monde gis nañ fi ay équipe yo xam ne dañ leen dóor premier match ñu dem ki donc dañuy am yaakaar parce que Sénégal suñu joueurs ñi ngi ci niveau niveau niveau yi ñu wara nek donc nañu am yaakaar. que Coupe d'Afrique mun nañ ci génn si jàmm ko joueurs yi daal maa leen wax ñu gën a góorgóorlu xam nga parce que ñun ñu ngi seen ginnaaw ñu ngi leen di supporter. j'ai espoir et puis je pense que aussi défaite bi dina ci baax trop peut-être que dina gën a booy ñu xam li leen indi xam ne xam nga y a tout un peuple bu toog fii Sénégal di leen supporter waruñu décevoir quoi. ñu leen encourager di leen wax ne ñu ngi seen ginnaaw nañu fas jom rek kan moo demee noonu dafa métti. nañu góorgóorlu ñun nous sommes derrière eux. yàlla nañu yàlla am si ñaari match yi ñu gagné yàlla na leen yàlla rek ñun ñu seen ginnaaw ah, jàppale leen rek. sénégalais sénégalais la am ku ku yor sa drapeau mooy sa mbokk donc ñoom yor ñun dañuy dem guerre nyom ñu yor suñu arme kon nyom bunyu ñu wul kon ñun la ñuy ñu ñu kon nañu jàppale quoi te xam ne nañ def sen jom dal ak seen ful la quoi. ñu góorgóorlu rek xam ne ñun moom ñoo ci rek amuñu nyu budul Sénégal ah. du ma mës a ñàkk espoir parce que ñoom lañ am amuñu raw. je les souhaite bonne chance comme man rek bu mënoon dem outil ñom ñep dañuy dañuy ut dara yalla nañ ko am yalla yalla Sénégal gagné Sénégal moy gagné. bon courage pour euh, on doit aller jusqu'en finale euh, ça inchallah on prendra cette coupe ça je je vous garantis on va prendre cette coupe.